salaamaaleykum mbokk internet 4appuis TV mbekke la ñuy amaat ak contentement jàkkaarloo ak yéen wala indi leen li nga xamante ni moom ngeen di bëggee saa su ne euh, muy làmb ji foo mënti am rek euh, ñu fay dem euh, taal suñu caméra dekk suñu micro waxtaan ak yéen waxtaan ak mbër yi ñu jëm bëggalante man ak yéen tey ñu ngi fi nga xamante ni mooy arène national journée Dieye production la mu waxtu fi ay combat am solo ay combat yu rëy diggante Abdou Diouf. ak Gris 2 mooy grand combat bi waaye combat spécial bi combat spécial bi combat spécial bi mbokk internet di Mbaye Tine ak Diarra 2 ñooy bëre combat spécial bi waaye bu leen fàttali Liss Ndiago mi ngi fii daf fiy bëre ah, Mathieu Pereira moo nekk noonu si géew bi ak ki nga xamante ni mooy caatu rëbës mën na nekk combat bu rëy combat bu neex ñu fas yéene bëggalante ak yéen rek. Euh, lépp li nga xamante ne rek lambaloon nee naa la 4appuis moo leen koy jox ñi nga xamante ni yéen lañ fi nekkal di leen bégal euh, di leen kontaanee waa 4appuis gi noonu lu ñu defal lu ne baaxul maa ngi lay xaadim jinne caméraman yi euh, tey rek ngeen bég diggante Mathia Pereira la ak ki nga xamante ni mooy caatu Rebeuss ñaari mbër yooyu def seen dernier a dernier débat dépp Mathia ngeen seen nañ ñu bor ko muy sotteekoo butéel bi waaye ki nga xamante ni mooy caatu Rebeuss moom tamit. mi ngi taxaw si ki mooy préparateur mystique am ñoom ñaari si géew bi ñoo seen dernier réglage balaay arbitre bi sifflé xaadim combat baa ngi bi ñoo ngi seen dernier diggante Mathia Pereira ak Thiatou Rebeus mu nar a nekk combat bu nar a neex combat de rapprochement la nekk parce que Mathia ku ko xam-xam ne bëre kat la xeex kat la euh, waaye Thiatou Rebeus aussi ku ko xam xam ni Rebeus la jógee waa Rebeus dañoo mën bëre tey bii combat waaye Gris mi sama ginnaaw du yëngatu moom tamit daa mel ni pare na. ak Caatu Rebeus ñaari mbër yaa ngi yëngu tribune ba ngi yëngu woykat yaa ngi woy tëggkat yaa ngi tëgg waxkat yaa ngi wax waaye mbër yaa ngi si géew bi lu mën a am ba mën a am mooy internet bu Car Appuis di ngeen kontaan te di ngeen bég xarit xoolal ma Lac de Guiers 2 xoolal ma Lac mu ngi téye këll gi bul fàttali match programme la waaye ki nga xamante ni mooy Abdou Diouf mooy seen tête de file kon tey waa Géejawaay ñetti journée lañu am tey. sa ñetti doom mooy bëre Macha day bëre Mbaye Tine day bëre waaye ki nga xamante ni mooy Abdou Diouf seen grand day bëre tamit waaye ay combat yu nar neex combat yu nar am ambiance ñoo xew fi nga xamante ni mooy arène nationale euh, journée Dieye production la nee naa la moom Dieye lu mu tëkk lu ne day neex na day xool xale yi nga xamante ni lamb moo leen di bëggee xale yi nga xamante ni lamb da leen di bàyyi xel moom Dieye mu dajale leen fas yéene bëggalante ak amateurs waaye fas yéene moo tax tey doo sànni batt mu teg ngir mbooloo waaye ngir ambiance xaadim maca ngi noonu caatu robasa ngi noonu mbokk internet yi ñoo ko gisandoo oh, combat bi nee naa la combat bu nar a gaaw la waaye combat bu nar a neex la lu mën a am ba mën a am mooy ñaari mbir daañu ñamante te daañu jàppante bëre ñoom ñaar restez vous à connecter ñu bëggalante man ak yéen xaadim jëlal image benn chaise Lamine yëkkati na ko Lamine yëkkati na ko xanaa di ma xamal tex tex cinquième combat de la soirée diggante Macha Prera ak ki nga xamante ni mooy Thiatou Rebeuss ñaari mbër ngi doxalee combat bu nar a gaaw round Caatu Rebeuss moom la Mathia taxaw Mathia jël na Caatu bal na ko Mathia daan na ko la la la ne woon naa la a man du ma nit man jinne la ne la bi combat bu nar a gaaw la moom Mathia te kenn gi lay Xaadim indiwaale na si sikoro bi kii tey dafa pàcc li moom eh, jàpp sikoro bi bégal gale yi waa waa yëngu nañu nee naa la bi dafa mën bëre Mathia bu ko tegee si code day bëre làmb la dafa mën bis moom macca parara xoolal ma macca rek macca mi xaadim gis nga la dëgër de kontaan na daa mel ne Abdou am na confiance gis nga waa géej xaadim jëlal ma leen gars yi de ne naa la macca dafa mën bëre boo ko imposé da daan tey macca parara am na Parfara am na ndam sa Bouchma am na ndam yaay Mouhamed Ali bi am na ndam yaay Lac de Guiers bi am na ndam waaye eh, Macha am na doomu Guédiawaye ji am na ndam c'est kooku nga xamante mooy Thiatou Robes waxoon naa leen ko nee la ñaari mbër yi foo jaataa ñu waaye si bëre lay jeexee bu ñu jàppantee mu jeex te si la jeexee waaye man du waaye jinne laa wala rab laa wala lu mu doon. waaye yàlla moo ma jàppale ba li ma wax tombé cey waa Géejawaay amati nañ ndam daa mel ne waa Géejawaay stade bi da leen jik waa Géejawaay daa mel ni stade bi da leen jik dig na leen de waaye waaye combat bu ne la neexee si géew bi.